Euh, rendez-vous d'Alex euh, fii ci Baol Times euh, di dalal monsieur Dieylani Kébé Dieylani ñu ngi lay nuyu. ziar naa la Alex ñu ngi lay ziar baax a baax di kontaan trop ci invitation bi. alors bu ñu la doon laaj tey Dieylani Kébé kan mooy Dieylani Kébé nooy présenté sa waaw Dieylani Kébé bon comme ni ko ñëpp xamee jeune la bu nekk fii ci jurubel opérateur économique di yëngu tamit ci côté sport en tant que directeur technique national directeur technique régional. ak euh, en même temps di politicien tamit nekk ci derrière euh, Moustapha Gueye di ko jàppale en même temps di nekk président Saybato Espoir muy association boo xam ni euh, day ci social la yëngu di dimbale ñi nekk ci ay jafe-jafe voilà bu jëlaat ni bu ñu la doon laaj sa parcours bi nga dugg ci politique ak parti nga xamante nii jot nga leen fréquenté looy topp. waaw moo pratiquement question la boo xam ne vraiment sawar naa ci tontu. man je pense que ni politique teel na maa intéressé 88 euh, euh, boobu aw ma sax âge yu voté je pense que ni 88 mooy date bi nga xam ni ci lañ njëkk a décrété état d'urgence au Sénégal boobu Ablaye Wade laa doon àndal boobu xale la aw ma âge yu boobu je pense que ni Ablaye Wade fas lañ ko daan teeru fii Diourbel man ci kaw garab gi laa daan tiim Ablaye Wade yàlla tamit dogal na ci politique euh, parti bu ma mës a milité. PDS la. Mhm. mais jaar naa parti socialiste bi nga xamee ne suma yaay mi ngi jàppale euh, Tanor Dieng ma ànd ak moom Abdou Diouf ma nekk sama ginnaaw yaay. Mhm. mais pour militer ci biir parti moom benn parti laa mës a militer muy PDS. ku ma àndal soit élection local la dem naa ci turu euh, AP euh, kii RP ci laa nekk en 2009 conseil municipal. Mhm. jàppale naa fi docteur Malick Guèye. mais ñi ma àndal ñëpp amul kenn euh, même Dame Diop ànd ak moom ci élection local mais période boobu tardivement la ñëw ci man pour ma jàppale ko ci élection locale au niveau de Grand Diourbel euh, yàlla dogaloon na tamit ci élection depuis 2014 la woon boobu yàlla mayoon na ci ndam boobu tamit man moom tënkoon nañ ci lu bëri sax mais après élection yi bi ñu yàlla mayee ndam gisaatuma ko mu disparaître mais kon yàlla loolu la dogal mais ci laa toog lu yàgg nangu dugg ba jusqu'à présent amul benn président Sénégal bu ma mës a woteel ku dul Ablaye Abdoulaye Wade laa mës a jox sama carte mësuma ànd ak benn kii APR xaw ma siège bi sax fu mu féete Moustapha Gueye laa gis mu nekk koo xam ne duñu suñuy mbir dafa xaw a méngoo mooy xaw a naqari dara tuuti ci mooy jikkoy bañkat gi ma gis ci moom ak côté social bi surtout moo tax ma ñëw ci moom ndax gis naa ni dafay dimbale man ma nekkoon ci benn association boo xam ne dama gis ni suñuy jëf dafa xaw a méngoo moo tax ma dem rejoindre Moustapha Gueye jàppale yaa ngi waaw pour la moment maa ngi ci Moustapha Guèye mm-hmm. léegi ma def ci un an. Mm-hmm. di ko jàppale ci terrain politique bi. alors pourquoi choix Moustapha Guèye te nga dëkk Thierno Kandji am ay leaders yu nekk Thierno effectivement question la boo xam ni boo laajee danañ ni la mosuma génn Thierno Kandji. Mm-hmm. leader bu taxaw élection local ma jàppale Thierno Kandji. leader bu taxaw ma jàppale Thierno Kandji. waaye xam nga tamit euh, boo nekkee ci barab. dem ba nga xam ni leader yu bëri jàppale nga leen. li nga bëgg mënoo koo am nekk ci barab amut benn leader boo xam ne ñëw na ci yow ni la sëñ bi damaa bëggoon nga jàppale ma man ak leader yi nekk foofu man ak ñoom jàmm ak salaam lañ mës a séq maag Jaaretu Sarr ñoo dend bi mu ñëwee élection locale fii di xëccoo Jacques Bodin bien vrai que man musuma woon ni ma kay jàppale ma sama politique gis nañ ni dama dem féetewoo ak moom gars yi wax ma ne c'est parce que Grand Diourbel laa dëkk moo tax ma jàppale ko mais mosul ñëw ci man di ma jàppale politique boo jëlee ku maman umu ba ñoo dëkk sama nijaay la mosul ñëw ci man di ma jàppale ma donc boo nekkee ci genre yu mel noonu nit ki mosul a ñeme ñu le kaay jàppale ma Malick Fall zone boobu la dëkk ceen lokaa ñi mosul ñëw ci man di ma jàppale ma politique musta télé laay waxe ñëpp ngi dégg donc bu nit ki ñëw ci yow nii la dimbali moom Moustapha Gueye def na ko bu dul benn du ñaar li ma ne kër gu mag yëpp di observer seen politique bi def na ko dudul benn di ñaar ma bañ toog fi ma toog di observer terrain bi di xool ay jëfinam ak doxilam ma dem ba ci biir je me suis dit que ne kii doy na ma naa dem ci moom ndax ñoo ànd ñoo bokk gis-gis ñoo bokk li ñuy def kon man li muy def dama ciy gis sama bopp loolu tax ma dogo nangoo génn kenn local ñu doog a fekki kenn mais koo ci gis ci élection locale ma mës ko jàppale sax danañ la jëlaani mësut teg tànkam sama kër mësut am Mm-hmm. génn bi nga génn Thierno Kandji dem fekki Médinatoul Moustapha Gueye dafa am ay clause yu ngeen teg yéen ñaar wala. non amul clause c'est parce que DG Moustapha Gueye bu ñu xoolee Médinatoul man. Mm-hmm. dama faa am cër. Mm-hmm. dama ni barab boo xam ne da nga faa jënd suuf takke fa soxna sa teraanga yëpp nekk may investir euh, Médinatoul jël suma alal mu ne fa ma fay tedd di fa liggéey kon yàlla sédd na ma Médinatoul li may def Médinatoul du ma ko def Grand Diourbel c'est parce que Médinatoul man fanaan moo ma boole ak donc dama am tànk bu wóor Médinatoul moo tax tey war naa mën a taxaw ci Médinatoul tàllal samay loxo ndax su ma lépp mu ngi Médinatoul tey mais Grand Diourbel fa laa fekke baax fala ma baax fekk mais dem naa ba genn woowatuma wala kenn gisatuma li ma kaay jàppaleñ ci politique donc man gis naa ni war naa mën a dem dem ànd ak koo xam ni mu ànd ak moom ñu bokk liggéey ba li ñu bëgg Grand Diourbel ma def ko fa te tey wuyu si na ma mm-hmm. tey teraanga bi nga xamee ne tey tey bu ñu xoolee ànd dooleel Moustapha Gueye bi ma bokk tey Moustapha Gueye wuy su nañu plus de quarante emploi tey ci ay jeunes Grand Diourbel Moustapha Gueye jël na leen ci sama tur te bu ma fa toogoon di toog di seetaan loolu jeunes yi du ñu te ñooñu ñëpp tey jël na ku ne am nga sa teraanga ci biir quartier bi ban leader moomu mën a defal loolu mais toute la question est la boo gisee ku mën a dimbale say jeunes dimbale say euh, femme financé leen am na ci femmes yoo xam ne nii may wax ak yow ba ndaayaan jot nañu seeni i congélateur ñu ngi liggéey di fay am na ci ñoo xam ne ibbi nañ seen place yàggul même pas deux mois commencé jaay seeni ginaar ak yëpp ñii mu jël leen yóbbu leen course ñii jigéen ñi nga xamee ne daf leen a jël financé leen ñu def seen i projet commencé liggéey loolu benn leader mosuma ko defal à Diourbel mm-hmm. kon loolu mm-hmm. dem bi ma fekki Moustapha Gueye ndam la ci man ndam la ci yow mel ni danga nga yore kuréel ba doon xayma kuréel bi euh, ndaw yu topp sa gannaaw euh, ñaat la ñuy toll. xam nga man bëgguma loolu sax ci politique. man damaa bëgg benn responsable. li gars yi naan man am naa base def naa nii def naa nii man j'aime bi ma ñëw di ànd ak Moustapha dama ñëw fekk benn kuréel bu tudd ànd dooleel Moustapha Gueye bu Moussa Ndiaye créé woon. ñu woo ma ni ma yow de yëg nañu da nga rejoindre Moustapha Gueye te da ngaa nar a demaat sa yoonu bopp. yi. ñu waxtaan ba juboo ma ni leen li ngeen wax dëgg la mbooloo mooy doole yàlla dogal bi ma ànd ak ñoom ñu liggéey liggéey bu sell nii may wax ak yow ñu bëri dañoo defe ni mouvement bi maa ko jiite xam nga rek damay ñëw ci benn mbir sa tur yegg fu mu warta yegg ñu ñuy jéy lépp jéelaani la te fekk du man ñun ànd dooleel Moustapha Gueye Thierno Kandji laa lay wax avant ñuy yegg si ay CCN cité basse ngóolam nit dugg ci yeneen zone yi ñun suñu réunion pour feuille de feuille bi bu ñu koy émarger trois cent personnes ñoo ciy toog waxuma ay gune de ay kilifa ñoo ci toog lii may wax c'est vérifiable mu am na ci photo yoo xam ne gis nañ ko ci internet suñu benn réunion rek bu ñu dugal ci internet ci la ko gars yi gëj gis sax ci lañ gëj publier loolu mais plus de trois cent personnes ay kilifa waxuma ay xale ay kilifa toog ci réunion c'est ci mouvement rek bu ndaw buy doog a judd. waaw mouvement bi amagul sax un an. dooleel Moustapha Gueye. ànd dooleel Moustapha Gueye. ñu dugg ci leneen fàttali 2014 ba 2021 euh, Malick Fall député maire de Diourbel ak am euh, ñooy gérer mairie bi ban appréciation nga siy def. xam nga Malick Malick suma xarit la euh, maa ngi koy au passage ku baax la yàlla dafa dogal lu ndaw moo ñu tere ànd mille 2014 man damay jox ci ay principe mais lu ndaw moo ñu tere woon ndox mu nekk maire boo xam ne tamit. mën naa la wax ni euh, doolem néew na mais bu ma xoolee calculer Malick presque li mu yoroon ci loxoom boobaak léegi par rapport budget yi fi jaar boo koy évaluer presque c'est six milliards ëpp na ko géré na ci loxoom plus de six milliards ci six milliards yi Malick liggéey bi dafa xaw des tuuti ndax dafa am côté boo xam ne askan bi dafa fay xoj te loolu bu jàppee maire pour mu mënee liggéey dafay jafe maire yu bëri jaar nañ fi met Bodé yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana am na fi benn jamono mu taxaw mu ni seeni soxla seeni courant ak seeni ndox ngeen may laaj fay fajal naa leen ko maari tey ku mu demut sa dëj nga mere ko ku mu demut sa xew nga mere ko donc pour mu liggéey liggéey bu baax tey ci Diourbel problème la ndax tous les jours loolu mooy jafe-jafe ji boo xoolee budget bi mu yor yëpp réalisation bi boo ko xoolee néew la goo xam ni day am problème tey yaakaaroon naa ni tey même seen équipe municipale bi bu ñu fiy jógee mën nañ ma joxoon ni ma tey stade municipal par exemple defar nañ ko fi marché bi nga xamee ne seen i yi liy ëpp fa la jógee ñu defaraat fi fan yéen gis ngeen délégué marché bi bi ñu génnee mu ni depuis 2014 lu dul bunt ba daanu maire bi defu ko fi xam nga loolu délégué marché moo ko wax. Mm-hmm. ñëpp dégg nañ ko. xam nga yooyu c'est extrêmement grave. donc moom il faut mu gën a góorgóorluwaat askan bi tamit dimbali ko dimbale bi ñu koy dimbale. mooy bañ ko sës ci miir bi mooy que ni ku mu ñëwul sa xew nga mer xew defarul dëkk ak i dëj loolu defarul dëkk mais ku baax la et puis nekkul maire bu ñàkk chance quoi qu'on puisse dire bu fekkee ne mën nga observer Malick du maire bu ñàkk chance ndax lu bëri bi mu yegsee ci ayam xew na fi ay réalisation yi fi président def yëpp bien vrai que moom defu ko fi mais ci ayam la ñëw donc am na chance et ñu koy ñaanal vraiment yan bi mu woyof daal mu mën ko continuer doomu Jurbel la ko baax la waaw. Jeylaani si toutefois élection euh, locale yi doon 2021 euh, bi yéen seen kuréel euh, ban taxawaay ngeen si nar xam nga ñun suñu kuréel ñun ànd dooleel Moustapha Gueye bu dee Thierno Kandji ngay wax wala kër Moustapha Gueye ci boppam. dans le cadre général. Mm. xam nga boo xoolee Alex Moustapha Gueye dafa am fu mu bokk muy parti boo xam ne mi ngi tudd APR. tey même tey bu ma bëggoon génn Moustapha Gueye yóbbu ko feneen tamit mënuma ko ndax dafay war a tënku discipline de parti dafa am dafa war a sàmmanteeg li nga xamee ni parti bi moom la choisir tey parti bi bés bu waxee ni diw laa jël teg ko moo war a jiite ci élection locale yi Diourbel gi yëpp danañ ko topp ndax it Moustapha it nit ñi toppoon nañ ko élection yii passé commune Diourbel kan moo ko di dirigé woon Moustapha Gueye et pourtant nekk na mbir moo xam ne doo ko dégg fenn ñu wax ko élection yi passé au niveau communal moo ko dirigé et pourtant ñoom ñoo gagné mais parfois da ngay dégg nit ñu naan non DG mënut a gagné fii et pourtant foofu nekk na loo xam ne gañe na ko mais doo ko dégg donc ñun mënuñu sukkandiku fenn lu dul ci parti APR ki mag président Macky Sall li mu ne lii la mooy xew ci parti bi ñi ci des yëpp topp sàmmante kàddu boobu man en tout cas man seetuma ci parti kenn. man ku dul Moustapha mënoo taxaw sama kanam ci politique di wax ma lay dégg. waaw ku ci ne nag am naa ak yow jàmm ak salaam mais man. ci mbirum politique. noo ko ban jàng nga ci am. ndaw ñi war nañ xoolaat seen bopp ndax ndaw ñi ñu ci bëri dañoo yaakaar ne média bi wala kii bi effectivement Facebook beeg yooyu la ñuy politique waxante yi ñaaw yi da ciy bëri te mën naa ñàkk. c'est un milieu boo xam ne war nañ koo assenir man je vois mal tey jeune Diourbel. bu la neexee tey nga ni maa nga jëm ci Moustapha Gueye deux jours troisième nga dem seeti Souleymane Soumaré quatre jours euh, cinq nga dem seeti Malick Fall bu suba même pas un an nga bëgg a def le tour des politiciens ni ma am na loo gëm te ñun ñu am yaakaar ci jeunesse su Diourbel il faut ko xale yi tamit xoolaat seen taxawaay ndax ñun ñoom lañu yaakaar en tout je vois des jeunes yoo xam ni vraiment am nañu avenir politique am na ci benn jeune boo xam ni xaw xaw ma ko sax damay xool ay publication compte xaw ma Mamou Konté xaw ma dama koy gis ku mel na Diawka ku mel na Talafal fils du Baol ay jibi ñoo ñu damay gis seen i publication c'est des jeunes yoo xam ne bu ñu leen jàppalee war nañoo mën a dem mais am na ci jeunes yoo xam ne franchement dañuy rusloo Jurbel fan yi boo xoolee ci réseau yi waxante yi ñaaw yi dafa dafa mi ngi jéggi dayoo daal te loolu vraiment bu fekkee ni intérêt Jurbel moo ñu tax a jóg pour defar Jurbel xaleel dafa am lu muy gëm ñun ci ñoom lañu yaakaar pour Diourbel ëllëg donc war nañoo xoolaat seen taxawaay waaw. bu nu ñëw jeexal émission bi Dieylané te waxuñu ci li nga xam moo di mbas mi di lool askan wi fi mu toll nii euh, cas yi di gën a yokk ban appel ngay lancé si ndaw ñi. non du ma lancé appel sax ci ndaw ñi. man pour man état bi moo fragile. diñ ko fragile fragile euh, comment dirais-je. fragiliser man c'est ça mon problème tey. nguur war na mën a jël matukaayam gis nga mbas mi tey niveau bii mu yegg tey président Abdou Diouf bu ko fi fekkoon billaahi du ko yegg ndax dafa am loo xam ne bu amee askan bi nanguwuñu am yar ak teggin lu waay neex def takk leen seen masque ngeen bañ a takk seen i masque ku mu neex nga dem police dem ñaan autorisation bu la neexee nga teg sa baas commencé tëgg ki yooyu te dara du la ci fekk gouverneur war a jël ay matukaayam du ko jël tey bu ñu amee décision bu ñu war a jëli il faut ñu dem Tivaouane wala ñu dem Ndiassane wala ñu dem feneen ak feneen mu jëli ko man état boobu indépendant wut donc du ñuy am problème toujours te tey position bii ñu toll ak ak cas yi nii ñu continuer di élèves yi Diourbel waroon nañ ko tëj bu yàgg. waroon nañ ko tëj bu yàgg dafa am lu ciy seet du ñuy seet bu ñu ko tëjee kilifa yi mer indi problème guddi gi ak bëccëg bi yëpp gars yi dañoo war a wàcc sur le terrain ñu ramasse gars yi nga xamee ni dañoo bañ ndax feebar bi yegg na foo xam ni état Sénégal attanatu ko loolu mooy dëgg. nañ leen ko wax ñi nga xamee ni di ñuy nekk ci internet bi naan damay vacciné mais boo vacciné wut yow la intéressé booy vacciné wu yow la intéressé kon kenn warul taxaw tey procureur man liggéey bi ma bëggoon mu def ko tey ñiy taxaw di yàq xelu population bi ñooñu la ñu war a xëcc indi leen ndax mbir mi c'est un boo xam ne nit ñi defuñ ci attention mais mi mën na yàq tasum réew lu ne ñu wax ko ci internet bi ñu bàyyi la lu ku mu neex nga saaga président de la république ñu bàyyi la mbir mi daal man foofooy sama problème état bi na wane ni man maa njiit yaa ngi dégg ñu teg mbir mi ci dëgg ñi nga xam ne dañoo ñëw nag pour saboter ñu rappeler leen à l'ordre pour xam leen ni dëkk bi ah nul tey tey lu tubaab naan xaw ma waaw nul nul ne au-dessus de la loi mm. donc loolu dafa leer donc li nit ñi def ñoo ko tey nañu euh, ranger wu am yar am teggin respecter les mesures barrières ñu am jàmm ak salaam. man loolu laa ci wax. li may tàggoo mooy vraiment di jaale suma jigéen Fatou Diané. di ko jaalee li ko dal metti na trop. di profité vraiment ci occasion bi di ko jaal di DG ak jaale DG Moustapha Gueye vraiment ci lii nga xam ne dal na ci njaboot gi. di jaale Jurbel gépp ndax famille boo fi laal benn ñaar gu ne deux jours yi ne nga dégg dese. di leen jàll bu ne di ñaan yàlla jàppale ma ci politique bii ma ne sàmm ma ba. man ak sama raq ji yàlla boole ñu ba ñu continuer di ànd seytaane ba ñu dugg suñu diggante ndax li ñu bëgg a liggéeyal Jurbel dafa des lu bare te euh, seytaane waxu dama yàq na xel lu ne xaj na ci diggante bi may ñaan fii ma dugg yàlla jàppale ma fi ma toog fi ba bu may bàyyi politique ndax tamit dugg ci kër kii dugg ci kër gi dugg ci kër gi vraiment as góor moomu ko yàlla na ma ko yàlla sàmmal ba fii ma nekk yàlla bàyyi ma fi ba ba may quitté politique loolu laa ñaan suñu Mor vraiment ci taxawaay bi di gërëm yooyu ci invitation bi Baol Times dama cee am wàll. je que ni mësul def loo xam ni euh, gis naa ni war naa cee waxta waxuma ci saa yu may ñëw toujours damay jaar fii xool liggéey bi avancé dem sama yoon c'est parce que man ak ñoom Mor démb la ca su suñu waajur la. sama waajur waajuru jigéen dafa ma daan wax naan ma jéelaane bi may ñëw Jurbel métti woon na trop demoon naa ba bu ma amee problème mu dépense papay Mor moo may jox dépense. bi muy doog a ñëw Diourbel ay année 76. ñoom bu may ñëw ci ñoom du ñu xam sax li may indi ci ñoom. kóolóore googu laay sàmm ba léegi sama diggante waajur avant ma fiy jóge yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko moom laa doon sàmm moom ba bi mu fi jógee tamit sama diggante ñoom loolu laay sàmm. jërëjëf waaw jërëjëf Mor. Diéylani Kébé doonoon émission euh, rendez-vous d'Alex ci Baol Times euh, TV voilà Baol Times mu ngi lay nuyu di la euh,